جاءت القوى في عليكم من كل خلق سلام ضيف خلق إله طول ليالي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته soppe yi am di jàmm yi mbokki jullit yi gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di leen fàttali sunu bopp ragal yàlla ak jaamu ko di leen jaajëfal ak di leen massawu di leen baalo àq di leen baal ak di ñaan yàlla mi jéggale yàlla nañu yàlla boole jéggal alhamdulillahi rabbil alamin sant nañu yàlla bu baax bu ñu jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mi nga xam ne ñaanoon nañ ko daaw ngir ñu mën a ci jamono bi nga xam ne ñu ngi ci wàccaay ci bés ci biir bés yi muy juróom benneelu édition wu bi nga xam ne nitu yàlla boobu góoru yàlla boobu ci jamono di Cerno Abdourahmane Bari bu boggal di ñu gane si fii ci pikin muy ajjuma bi di ñëw incha allah muy le 23 juin 2023 soppe yi muy bés bi nga xam ne ci biir bés yi la bés ci biir bés yi ndaxte nag yëg nañu ne le 23 woy bi xale yi doon woy naan lépp dëgg la ahankay ndekete lépp dëgg la ndax dëgg mooy yàlla yàlla mooy dëgg bés bi ñu bés ñu jagleel ko bésu dëgg ñu jagleel ko lan mooy dëgg ñu xamal nit ñi ñu ko xamul woon walla ñi ko xamoon di fàtte ni dëgg mooy yàlla yàlla mooy dëgg kon balaa ngaa mën a dund baatu laa ilaha illa allahu nga dëggu dëggu moo lay may nga mën a dégg baat bi nga xam ne boo ko déggee dinga ko xam boo ko xamee di nga ko yëg boo ko yëgee di nga ko dund te dund bi nga koy dund moo tax nga nangoo dee balaa dee di ñëw bu dee ñëwee du la fi fekk laa ilaha illallah mooy baat bi nga xam ne képp ku ko saxoo kiñaan dana jóge ci yow réy dana jóge ci yow mbonte dana jóge ci yow soxarte dana jóge ci yow tooñ dana jóge ci yow jéggale it dana la yomb bu ñu la tooñee laa ilaha illa allah mooy baat bi nga xam ne ku ko gànnaayoo ku ne maa la ne jàq rek tiitaange dana tegg ko ci yow baatu la ilaha illa allah ku ko topp lépp loo yóotu ci sunu borom subhanahu wa taala nga jot ko baatu laa ilaha illa mooy taxit bu fekkente ni nekk nga ci ay xat-xat wala ci jafe-jafe xol bi moom dootul yëgati jafe-jafe yooyu lu dul laa ilaha illa bi nga xam ne mu ngi koy dund moom rek lay yëg kon nag ci loolu lañ leen woowee le 23 fii ci Pikine le 23 suñu soppee boobu di Thierno Abdourahmane Bari bu boggal ñépp xam ne góor yàlla piir la moo ñuy gane si fii ci pikin soppe yi waa Bargny waa Kër Massar waa Parcelles waa Pikine yëpp nag jidde caaroy kaw buñ ko waxee wax nañu quartier yëpp ñëpp ñu ngi leen di woo ci bés bi fan fii ci aynu maan ak medinatul munawara waaye ak lansaar ak daaru xuddoos ak quartier doora aw yi nga xam ne ñoo composé gox bi yëpp ñu ngi leen di woo ci ngoonub ajjuma boobu ñu ngi leen di woo ci ngoonub laa ilaha illa allah ci kanamu góoru yàlla bi nga xam ne ni kotu laa ilaha illa allah ci jamono bi moom moo la ko yàlla dénk ñun mu am luñ ci nàmp di ko gàll di leen woo ci loolu ngir ngeen mën cee nàmp nàmpal ci seeni njaboot ñu ngi leen di ñaan ngeen ñëw ak dal ngeen ñëw ak teey ngeen ñëw ak yaru ngeen ñëw ak yéene yi nga xam ne yéene yu sell la te nag gis nga bés bi ku mën na ñëw ku mënul na ñëw ku mën na ñëw ku mënul na ñëw loolu nag waxin la ndaxte ki mën bu ñëwee ëndaale na ki nga xam ne ñëwul waaye ki mënut ñëwit ñëw it nañu yónnee ay ñaan yoo xam ne ni fa tabarakallah dinañ ko soxla ci bés boobu man la seen soppe Hamdou Rabby Wane fii ci Pikine asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu